والله أنا أصوم إلى غير سيدنا إمامهما ميزاك أحمد وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد بقي ñi ngi tàmbalee wax ci turu yàlla di sant borom bi subhanahu wa taala ci ay xéewalam yi nga xam ko ci nit ñi te xéewal ji nga xam ne moom lañu ne war ngaa xam ndax ji la teraangaam nekk nu ko si naxamal doon waxee ñun yàlla daf ñoo jox islaam pour ñu teddee loolu day firndeel ne diine islaam diine diine la joo xam ne bu ko jàpp ألا يكذب فو niki non tamit ku ko bayyi tedd nga mënu nga xam ndax alquran loolu la saxal yàlla ak yeneen toog ak jullit yi ñoom ñoo am tedd la kon xewal googu bu ci nekkee bu cee sant subhanahu wa taala di ñaan yàlla mu saxal ci diine sallallahu alayhi wa sallam ne lépp loo ne njëriñ la te nekk loo ne dañ war a leeral la ci diine ji yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam leeral nañu ko ba ne amul benn jullit boo xam ne yaa ngi angga ideas regarding war, you will pour boo ko delloo ngir nga xam sa diine te ñaar yooyu bu ci gën a wér mooy alquran karim ak sunna gi nga xam ne moom la ñu bi sallallahu alayhi ci wax ci wala sax lépp ci alquran la ñuy ak ci li nga xam ne mooy sunna ndax ñaar yooyu mooy suñu delluwaay ci li xam ne mooy diine ji te bu ñu waxee diine ji mooy tamit li ñu war a dundee ci àddina bi ci lay dugg di dolli ñaanal bépp jullit boo xam ne yaa ci fitna yàlla teggi la ko rawatina ñi nga xam ne comme ni nga waxoon si àddina bi passé mooy mbokk yële nekk ca Palestine yàlla gën leen yokk ndimbal ba ñu mën a toog xeex bee ñi def ñu am ci gañaar bu rëy ndax comme ni nga waxee moo ne ini hubungan amdal ini Nabi. Jom jom. Bagi saya ni tahu ki kote. Ni akan terjadi sahul di Israel. Sudah tuh deh léegi dina dina dina yàqu mu waxoon ne lu gën a ragal ci jullit ñi mooy gis buñ leen gis ñiy dajaloo ci benn bërëb mu toll ni juróomi yoon wala ñu wër benn téere di nga jàng di nga mokkal loolu moo leen gën a jiital ci li nga xam ne mu ngi ci jullit ñi kon loolu bi ñu xamee jullit bi am ci ñoo xam ne yàlla may na loolu ndax am na dëkk yoo xam ne day jëkk ji tey jullit lañ di woote woon ne ne islam lay woote tax ah, boo demee seen nit ñëpp ñoom jënd leen ci alal wala ci leneen kon nag fekk ñi ngi gis mbooloo moo xam ne ñi ngi taxaw di défendre islam pour islam des ci kaw suuf ndax loolu mooy njëriñu àddina bi yëpp ñooñu dañ leen di dolli moo tax loolu dañ ci sof ci ci waxtaan tey mu nekk waxtaan di fàttali sama bopp ak julli ñëpp mu bokk ci xadis yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi mu ci am ñu ci leeral ci jullit bi jamono yi ñu toll nan la war a taxawee ndax dañoo toll ci jamono yoo xam ne jamonoy fitna la loolu ku ko gisul dégg nga ko wala yaa sax yaa ngi koy dund yaa ngi yëg ndax xeex yi am rey yi am yeneen yi mbir yoo xam ne ci ay ñaawteef yooyu yëpp mu ngi feeñ léegi bëri kon yooyu yëpp bu feeñee ci àddina bi دور الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ الفتنة يجي يوم أنت حديثنا بس بيجي دو تخاو موك معنى دنجيس بس بيجي ولا دنجيس أي مان دام دام يوم أنا لبعي موانين جيغانا لدو نه مريدنا فيه bu yoo ñu ci xel bu ñu gisee mbir yi di feeñ ñu xam ne ku nekk war na waaj ne bu ma dajeeg yàlla subhaanahu wa taala nan laa war a dajeeg moom ndax kii sàggane loolu rek moo ne yow xamoo xamoon ci loo ne te ñu bëri dañu jàpp ne fii la leen léegi ñu bàyyi wala wala wala dinañ dund ba ci kanam ab jullit da ngaa war a jàpp ne yow fekk instant mën ngaa dem dajeeg sa borom subhanahu wa taala moo tax da nga gis day bëri am ak yëpp am na si ñoo xam ne ñu jàpp ne affaire bi yegg ci ñoom te loolu erreur bu réer yéen bi ne yii bu feeñee rek ki woo ki woo waay xam ne bi si feeñ yegg na bu si njëkk mu ne ñaaw téef façon ñaaw téef bu ne feeñ si àddina bi bu ñu gisee ñaaw téef génn tasaaroo ci àddina bi te mooy lépp loo xam ne lu ñaaw la jàngal yeeg ak yeeg lépp ñu koy gis mu tasaaroo ba waxuma la sax tasaaroo bi waaye dem nañ ba am na ci yoo xam ne sax dañ koy tuddee ne ñëpp a ko bokk ci xeeti kàtt yi la boo demee sax man mi sax boole nañ ma ci la ci yow ñu ne ñu ñoo ko moom te xamoon nañ ne kàtt dafa xaraam bokk ak yeneen yoo xam ne sax daa mel dafa nëbbatu te nëbbatuwul tooñ gi bëri jël ak jàmbur bëri yooyu yëpp bëri yonent bi ne yoo war ngeen waaj xam ne léegi tey ngeen dajeeg ci seen borom ak li nga xam ne mooy toog ci diggante mbokk yi boo demee fii ba gis ne mbokk yi àndatuñ ngir yàlla nañu xam ne léegi tey alxuraan ñëw wala léegi tey ñi dajeeg ci borom subhanahu wa taala yi ñuy wax nag bu ñuy tudd ngay bàyyi xel maanaam bëri na ay mbokk yoo xam ne ñu ngi ànd àndu ngir yàlla waaye ànd ngir intérêt rek ànd doon ci kaw waaye est-ce dëgg dëgg na islam jàngale mbokk ak nañ war a àndee ñu ngi koy àndee loolu dañ bàyyi si xel bis bi ñu gisee ne commencé nañoo dog mbokk yi nañ xam ne fu toll léegi tey buntu tuub tëji te buntu tuub bu tëjoo moom mooy ne amatu kenn koo ne yàlla dina la nangul bokk na ci yi nga xam ne di tudd na ko mooy ñaawal di jëm ci dëkkandooram bis bi demee ba nga xam ne nit fonkatu dëkkandooram joxatu ko cër ak ka yawwar seen diggante matalatuñ ko boobaa nañ xaar mbir yàlla ni ki noonu tamit bis bi demee ba gis ne wurujkat yi annaafiq yi ñi nga xam ne duñu wax dëgg ñooñu la ñuy gën a jox confiance ñoo la ñuy gën a yëkkati ci ñi nga xam ne ñooy waxkat dëgg yi ak ñi nga xam ne ñooy defkat yi baax yi buñu demee ba nga xam ne ñooñu la ñuy suufeel yëkkati ñi nga xam ne ay fenkat lañ ak naafiq yi ak wurujkat ba nga xam ne sax ca wàllu fal ñoom la ñuy bëgg a fal <coughs> boobaa yonent bi ne na ngeen xaar mbir yàlla maanaam buñ ne bis penc day taxaw mooy boobaa nañ xam ne bon àddina bi yàquteem jege na balaa bis penc taxaw foog àddina bi yàqu mu ne ñi dem ba nga xam ne koo xam ne dañ kaa wóolu dëgg dëgg dëgg wóolootuñ ko ñi nga xam ne dañ leen a wóolu wóolootuñ leen boobaa nañ xaar li nga xam ne mooy mbir yàlla ba yonent bi waxee loolu sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi dañ ko laaj na ko boobaa jullit bi nan la war a mel fa kayfa yakunu al mu'min ki nga xam ne gëm na yàlla te toujours dañ koy wax bu gën di leeral gëm yàlla li bi wax mooy ñi nga xam ne nangu nañ yàlla subhanahu wa taala ñi ngi dox ci ay ndigalam nañ ca man la yàlla tere lépp ñi ngay bàyyi boobaa ñun ñuy tuddee ay jullit saa ngay laaj boobaa jullit bi nu muy mel ba koy fay ku moom it mu ne bu boobaa mu misaalee ko mu ne dafay mel ni comme tàndarma nga xam ne ay njëriñ kese la loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da jàngale waaye lu mu ci jublu mooy jullit bi war na ci moom mu xam dëgg dëgg dëgg ne lépp loo xam ne mu ngi feeñ ci àddina bi sa waxaan da lay jox xaalis alal am na si ñoo xam ne seen njottu yóbbu na leen ci ñi dem ba jàpp ne li ñu am ci alal mën naa tax ñu am liñ soxla ci àddina ci wàllu fanu ci wàllu leneen ak leneen waaye ñun alquran dafa wax ne ñooñu nekkuñ ci dara seen alal jooju ñu am yaxsabu anna maalahu axlada dañu jàpp ne alal ju ñu am moo leen fiy béeral moo leen fiy tax ñu des bi waaye alquran ne kallaa la yubazanna fi lxutama alquran ne ne damaa lank dinañ leen tabbil ci bërëb bu ñuy wax xutama te xutama tur la ci kuuri safara yi ah yàlla nee dinaa leen dugal sax kon ñooñu alal di ñu am taxut ñu des fi bëri na ñoo xam ne fay nañ leen alal ay milliards fay leen alal jooju laata ñu jot ci alal ji dee nañ bàyyi ko ñi koy jëriñoo xamuñ te loolu mi xew si jamono jii ah njottoon nañ ne. lañ leen di jox ci alal wala la ñuy am ci alal loolu mën na leen a protéger bañ mën a bese àdduna bi waaye fekk mbir yàlla moom bu xasee ñëw kenn mënu ci dara kon mbir yooyu yëpp ci ay ñaawteef yoo xam ne dafay gaawal pour nga am àddina yooyu yëpp nekk ci sa kanam yow jullit bi yonent bi nee na bul yittewoo mbir yooyu ba ñuy jeexantal ci yow maa da nga fexee ba ittewoo ki nga xam ne mooy borom bi subhaanahu wa di yàlla bu ittewoo lu dul yàlla boobaa da gis ne la nekk ca borom bi subhaanahu wa taala mooy li nga xam ne mooy def waaye lépp loo xam ne mu ci jaam yi dafay jeex loolu boo ko jàppee boobaa da nga mën a waajal dajeeg sa borom bi subhaanahu wa waaye boo jàppee ne ah addina bi de mu ngi gaaw nit ñaa ngi tabax nit ñaa ngi nàngam tax ba nga dugg ci loo xam ne lu xaraam la wala dugg ci tooñ boo xam ne ëllëg yomal qiyaama yàlla dina la ka xisaab ak ñan nga tooñoon loolu jar bàyyi xel mbokk kon war na ci jullit bi mu xam dëgg-dëgg ne moom borom bi subhaanahu wa moo ko bind mu yittewoo yàlla subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi dénk ñu ne boo leen yeggee ci jamono yu mel noonu na ngeen di ëpp li ngeen taxawoo muñ da nekk ay muñ kat di jaxasoog nit ñi fitna yi ñuy génnee di dal seen kaw loolu yàlla da ngay def ay tiyaam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa dina am jamono yoo xam ne dina ñëw nit ñi ñi nga xam ne ñooy ay muñkat rawatina ci seen wàllu diine maa ñi ngi ngànk seen diine di dund ak moom lañ leen teg ci ay jafe-jafe yépp ñuy muñ mu ne ñooñu seen pay ci yàlla dafay tolloog lam doon fay saxaaba yi ci juróom fukk yoon saxaaba yi laaj ko na ko ndax si ñun yonent bi leeral ne ci yéen maanaam la nga xam ne yàlla daan na koy fay saxaaba yàlla subhanahu wa def ba muy juróom fukk mu fay la ko yow mi nga xam ne yaa ngi jàpp sa diine di ko dund muñ ci natt yi nga xam ne mu ngi wàcc si àddina ak fu mën a jógee kon loolu xéewal la bu rëy koo xam ne jullit bi war na kaa bàyyi xel bu nekkee ci jamono yu mel nii loolu bu ko defee dina yokk sa gëm yàlla dina yokk tamit sa waajal li nga xam ne mooy daje bi nga xam ne moom nga daje yàlla ndax comme ni nga waxee commencement bi bu demee ba gis ne jamono yi yàqute bi bëri na tooñ gi bëri na ak yeneen ak yeneen yonent bi nee na na ngeen xam ne bis ji taxaw na loolu mooy lan mooy na ngeen xam ne addina bi yàqu na kon daje yàlla subhanahu wa taala jege te addina bu bu yàqoo moo ne ñii mujj bëriwuñ ndax am na xadis boo xam ne yonent bi wax na ne ñëpp ba alaku ba mu des ba mu des ñi mujjee mooy ñi nga xam ne dañuy sellal te mu ne ñiy sellal ñu ngi si danger te duñ ñëw di sellal di wax ne diw ku sell la waaye ñiy sellal ñu néew lañ te ñooñu ñoo nekk si danger kon fexeel yow jullit bi nga góorgóorlu jéem a bokk ci ñi nga xam ne ñooy sellal. donte da nga nekk ci danger te mooy lan mooy nga fexe sa diine gi nga ngëpp ko di muñ comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sante bu ko defee loo ci def ci jaamu yàlla mu nekk loo xam ne pay gi pay bu mag bu rëy lay nekk ca borom bi subhanahu taala kon ñu bàyyi xel ci mbir yooyu jéem a delluwaat ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa ndax ci la njëriñ nekk ci jullit bi ci la njëriñ nekk ci àddina bi yëpp kon ñi taxaw foofu di ñaan yàlla liñ ci wax yàlla déggloo ñu ko di ci jumte yàlla baal ñu ko ma daal kala aziz wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa mawlana muhammad wa alihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullah